participer à activité parce que tu xoolee fini ni mu meloon 5 suba nga après da ngay vous avez na fi nañ ci. dafa xam dañ ko pérenniser <coughs> parce que tu développement parce que développement d'abord day commencer un bon cadre de vie un un cadre de vie de développer parce que cadre de vie mooy boo setul doo wér et boo wérul munoo aspirer à développement tu pourra beau et bien changer les institutions def ay réformes mais gars yi bu ñu wérul du def dara donc ñu ngi au Sénégalais di woo population bi itam ñu changer ci loolu parce que nit développement c'est personnel d'abord yow yaay njëkk développer sa bopp ba pare doo koy mën à aspirer développer développer sa bopp mooy lan nga adopter ay comportement yu baax comportement yu baax mooy lan man duma ma setal sama kër du ma setal sama néeg du ma setal sama kër du ma setal foofu parce que nan, ayor sama ben ordure genn ba ci mbedd mi sanni ko amul lolu itim bokkul ci citane bokkul sax ci acte parce que don de soi bi patriotisme itim c'est pas des mauvais ay comportement la ay façon de faire la ay mode de vie la donc ñi ngi wax patriote yépp di leen woo ci loolu noonu surtout tabaski bii di ñëw parce que tabaski mi ngi ñëw boo xoolee égout yi ñu yi ñu doon nettoyé tey benn waaye mi ngi expliqué fële sax nee na keroog ba muy nettoyé bëy sax génnee ko ci te loolu ñun la du état du mairie du dara malgré am nañ ci part de responsable mais ñun la mairie bi nag ñun ko ñu ngi koy wax moom it monsieur le maire Mansour Faye su nekkee da nga démissionné te yëgaloo te te xamoo ko waxuñu ko ñu jéem a xool nu ñu def ak suñu mairie parce que ñu comprendre benn quartier bu toll ni Pikine hivernage baa ngi ñëw la fois passée ba président ñëw ne dañuy lancé appel dañu génnee seen structure yëpp ñu génn bale mbedd yi curé affaire yoy non lépp dañ et tay ji gaay romb nañ amna na yo xam ba léegi laalaguñ ko mo lay wone ñom il ne respecte pas les populations il respecte que xam nga le donneur d'ordre moy le président de l'arbre or que warul démé non parce que situa citoyens yi fal président la et président de la République sen sen sen waaw la wara wéy donc ñi ngi wo monsieur le maire mu revenir à la raison xam ni les saint louisien dañ ko fal pour mu jité len dañ ko fal voter ko budget pour budget bobu dellu ci Saint-Louisien mais pas ñu fal la nga dem tëddi fele dëkk bi gisuñu dara ci li nga ki woon donc ñi ngi woo citoyen yëpp si activité citoyen si don de soi bi euh, c'est un appel que le président Bassirou Diomaye Faye bu lancé woon euh, dimanche bee passé yaakaar naa ni appel boobu bu mu lancé c'était pour tout le Sénégal mais euh, ñun les patriotes au niveau de Saint-Louis dañoo jël initiative donc chaque dimanche du premier du mois ñuy dem ci quartier yi di nettoyer donc, euh, les cadres de concertation de Pékin, on a fait ça à euh, Angaltal, Pékin 700. Donc aujourd'hui, on est là à Pékin 15 mètres. Donc, dañuy les patriotes yi avons aussi la population de Pékin. Euh, c'est beau de balayer nit ni di balayer di mais bañ a tilimal Euh, dañuy ñaan rek bu ñu defoon dañuy gis ay couche ay boutique lu ne la ñuy génnee ci kii te loolu aussi man jigéen ñi laay waxal parce que ku wax bale wax set rek euh, donc ci jigéen ñi laa koy jëmale donc nañu xoolaat suñu toogin bu baax ñu war a xaar lépp ci état lii ñun ñoo ko war a defal suñu bopp donc waruñu xaar ci état ba ñëw indil ñu ay camion defaral ñu li ñun ñoo ko war a defal suñu bopp setal suñu gox donc ñun ñoo war a bale ñun ñoo war a ñu bàyyi di naan ay café di sànni parce que dafa am ay pots yoo xamante ne même bu dee teguñ ko yow patriote bi mun nga dem xool benn bidon nga dagg ko takk noonu ci koñ bi bu nit naanee café ba pare wala sachet ndox mun nañ ko sànni foofu noonu loolu aussi ce sont des actes de bon comportement du citoyen donc changement bi ci ñun la war a njëkkee donc il faut que euh, population bi changer seen comportement ñu mun a dem sinon euh, wax dëgg yàlla affaire bi dina nekk di bale chaque dimanche mais du ñu am ci résultat tey nag danoo jël benn initiative loo xam ne depuis année yee passé amu fi ñun ñuy ay doomu Pikine dëkk Pikine juddoo pikin yaroo Pikine màggee Pikine sonn lool nag ci mbalin mi ak ndox mi ak salte bi ak canal yi bouché te kenn fekkuñu ci ñun en tant que jeune nag ñu jug takku taxaw li président wax rek dugg biir Pikine bale ba mu set nettoyé ba mu set débouché canal di ñaan nag sunu mbokk waa Pikine yi ndax tey lu lu lu ñëw rek ci suñu kaw lay dal wala suñu kaw ay doom nan respecté Pikine bu ñu kenn faale ñu faale suñu bopp nañ respecté Pikine bu ñu xëyee bale ba mu set raxas ba mu set nettoyé ba mu set tabaski gaa ngi di jub si kanaal yi léegi mu bouché waat ndax ku rey sa xar jël say mbàq ak say buti sotti ci ku ray sa jël sa der sotti ci jaaduwul du dëgg du yoon dañuy alerte ñëpp nag dañuy alerté ñëpp te jug nañ ci te daan ci taxaw incha allahu rabbi di ñaanal ñëpp nag naan le président bul fàtte nag doomu pikin yii bul fàtte doomu Pikine yii kat ndax ñoo taxaw pour Pikine Pikine bépp autorité bu fi mën a nekk boo nee Pikine ñu ne Pikine dañu salte lijjanti wuñ ñu faale wuñ ñu kon nag bu ñu takkoo di xeexal le président ba yàlla indi ndam ñu takkuwaat di xeex dimanche bu ne ñu bàyyi suñu ay lal bàyyi suñu ay jëkkër bàyyi suñu ay doom ñëw di bale le président guerre suñu suñu gaa yaa ngi Pikine kat na ay responsable Pikine na am Pikine na am leneen ak leneen ak leneen ndax soxla nan ko jeunesse baa ngi fi war a liggéey quota yi génn nan ci jox jeunesse bi jàppale jeunesse bi.